taxawal taxawal bi. Pape Diop ziar na la. delloo ziar. ndax tey sant yàlla bu wér. lan fi ñëwoon sa nga ñëwaat. ñaari xale ñaari ndaanaan. qualifié de Pape Ndoye wàccaay. avant tout Idi maa ngi lay nuyu. di la ziar di am contentement bu wér boo ma timalee micro. di amaat beneen contentement bu ma xalil timalee caméra bi. nit ku baax di nuyu waa wasaare lamb yëpp. alof Ndiaye dana ku yokkul da ngaa wàññi mais ba nga ñëwee ba léegi da ngaa yokk yàlla sa jaamu yàgg ngay ku ñàkk ki ñaan nag waa di wax comme li wax le 18 mars fii ci arène nationale dañ fee ñëwoon indi ki nga xam ne mooy Tapha Mbeur ak Gamou Gueye ñu ñëwaat fi indi ko li fay bu ñuul bi boole ko ki nga xam ne mooy Pam Doy nga xam ne dugg na ci tarkindaa yi ñaari yoon am fa ndam mais ko li fay dana ko tey ngay mujjee dugg ci tarkindaa yi Pam Doy ne ko bi may ñëw nii demi final la final moo des nee na ko demi final la final moo des mu nekk combat boo xam ne amateurs yi dinañ ci gis seen bopp fii ci arène nationale samedi nga xam ne le 18 mars lay doon di ci woo ëllu làmb yëpp ñu boole ci ay xale yu xam ne làmb de leen a yaakaar muy ay combat xam ne combat espoir la ndax boo xoolee vie vie top indi nañ ko boole ak param kii booy ñaa koy indi kii moo loo koy indi muy premier avant goût mu ne ma jaa boo gëstu comment. responsable ki nga xam ne mooy président jot na dëkk fee sa benn barak xam naa ne war nga koo xam gëw su comment di jàppale mbër yi ñoom tonnerre ku ci am comment da lay jàppale ay moo morloo ñoom ñëpp da leen di jàppale muy drapeau gëw su comment di ko ñaanal jàmm la le 18 mars lay doon fii ci arène nationale buñ fa jógee beneen drapeau bi Fa Vivi Ndiaye bi nga xam ne moo nekk Zik FM moom lañ tuddee drapo diggante moo di anta numéro 2 sans frontière ak sira bu anti loolu rek doyoon na lamb xale lamb yi neex lamb xale ak yaram aar xale ñi may tiimale ko ay xale lañ jeex na mu ngi noonu xale yi si bëre bari nañ ki nga xam ne mooy Petit Baye Fall dina ci bëreeg Petit Baye Fall bu Tëngéej numéro 2 dina ci bëreeg armée Bousse 2 dina fa bëreeg Alliance Baldé Sey Jàmbaar dina fa bëreeg guy gi guy gi ba Abdou Ndiaye Sey Jàmbaar da ko Petit Papa Siteu dina fa bëre ki nga xam ne mooy plateau bu Ndakaaru. xale. lamb xale. promoteur xale reporter xale. de Massa wax la nga xam ne lem naa ko fay la dina ca bëre ki nga xam ni moom moo di Ouskara bu yëmbal aseg naa nga xam ne léegi naa Pam Ndoy la nga xam ne fa la tuxu. yow da yow nga ndax wala nitu seytaane nga yow da ngaa jël Lo ama Boy Niang boole premier combat jëliwaat Colifay 2 Pape Ndo jëlaat a i poulain indiwaat ko loolu lañ def nax dañoo bëgg làmb ji ku bëre toog xaar moromam te loo ci xamul rek rek mi ngi bëre ak Sa Thiès nee na lu mën am moom mooy indi ki nga xam ne moom mooy Colifay nax ci ginnaawam la ko boot Siteu moom mooy indi Colifay Issa xam ne Lac Rose mooy indi Pape Ndoye Gris Bordeaux moo indi Pape Ndoye ku bëgg a dund làmb le 18 ñëwal fii Torga dina ci bëre ak ki nga xam ne mooy réparé numéro 2. ma xamal la leen dafa am combat boo xam ne sama combat la muy sentel rakku Baye Ndiaye rakku sentel numéro 2 ak ki xam ne mooy Siteu soldaar bu parcelle lamb jooju sama lamb la maa ko bëggal sama bopp. ay xale nga tëgg. lamb xale rek lamb ju neex ku bëgg a dund lamb ñëwal fi ambiance di nga gis lépp fii ci arène nationale ak yaram aar di nuyu Idi maa ngi koy nuy bu baax di nuyu Bakary tamit maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ki nga xam ni ñëwal jëli ko ñëwal sa Bakary la jor nga numéro mu woo ko. nekk mu fekk foo ko woo foo ni la taj mu ne la mu ngi fii nga ànd ak Khalil dem fa dinaa ko jël yéen du yéen la demee